ni bi xew-xew di am foofu gisuñ fa benn responsable PDS am na journal boo xam ni télévision boo xam ni génn na événement yi pour wane loolu ndax ñoom dëgg moo leen tax jub ñu bëgg Sénégal yëpp xam dëgg kon wax dëgg yàlla téye bi nu téye ñii ma seet teguñ ko woon fenn te weesu na aussi bésu élection mënuñu jël ay candidat di leen téye lii benn année la xewoon Sénégal te année boobu yoon jox nu dëgg ma bokkoon si ñu doon layoo Ablaye Wade mooy 1988 bi leen arrêté après élection yi moom Abdoulaye Bathily Dansokho loolu lu amoon kon lu amoon. ba fanweeri at ak lu topp waruñ ko delloo Sénégal ñaawlu naa ko bu baax man wax leen ni leen ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañu Ablaye Wade wax na ko ay yoon yoon taalibe nag lu moo jëkk jëfe ndigal ñun Sénégal gi yëpp amul fenn foo xam ni daa ngeen tudd suñu coalition nii am na fa fitna buñ fa yee daje nañoo ay caravane yu bari mais ku nu dajeel dañ tàllal loxo ndax booba ñu ngi jëfe ndigalul sëriñ Cheikh Sidi Makhtar fii si Touba fii si Touba dama leen révélé xam ni presse bi bëgguma ko woon wax waaye wax ko jot na bés ba ba mu amee kenn gisuma sa marche ba tax maa ngi woon fii si sëriñ bi bi ma jugee ci sëriñ bi dama woo Ablaye Wade ni ka sëñ bi nee na comme danga nga jébbalu si moom am na loo xam ne bëgg na jox la ko nga jël ko di ko jëfe mooy bul fexe benn yoon sa bakkan nga koy exposé jamul foofu mu ni que aussi na nga fexe ba ñi la gëm ànd ak yow dafa am lu la war sa digganteeg ñoom bul exposé benn yoon ñoom it seen bakkan bu leen yóbbu ci fitna loolu moo tax Ablaye Wade koro marche ba àggul place de l'indépendance ban ko teree rek dafa wàññeeku kon kuy jëfe ndigal fale sa ndakaaru rawatinu Touba gi Touba gi tebbiwun fi benn yoon ndigal bañ nu ba la sëñ bi wax fu nu toll ñun dañ koy fàttaliku ñun suñu biir la xew nag naqadi nanu suñu sañoon benn fitna du am Touba waaye nag li ëpp solo ñun ay taalibe lañu ci kaw loolu ñu ngi wax sëñ bi nii ñu ngi yeesol ni ay taalibe lañu fu mu nu joxe ndigal suñu waxoon sax nanu bàyyi politique bi bu kenn politique ati bëggatuñu dégg ci politique ñu bàyyi politique ñu wuute noonu ñeneen ñi wutante nanoo ñeneen ñi nga xam ni dëkkewuñ fi lu dul xas sëriñ si di leen wax wax ju ñaaw joo xam ni ku ko dégg sa xol jeex ñun duñu saaga sëriñ duñu wax sëriñ lu ñaaw ñun dunoo jëfee ndigalul sëriñ bi rawatina ndigalu sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar waaye nag taalibe su lu xew li nekk day jéggulu ñun ñi ngi jéggulu sëriñ bi ndax bëggunu yeneen i nit yëkkati xolam su jógewul si ñun sax bëggunu xolam dara am si lu dul mu am ngërëm mu dencal nu ngërëm nu gërëm fu nu toll kon loolu ñu ngi see jéggul bu mat sëkk loolu mooy premier point bi lay Ablaye Wade waxoon président Ablaye Wade ni naa ko jottali ba ñëpp dégg ko moom dañ ko doon seenu si fitna benn yoon amul benn caravane bu ñu dajeel ñun yorewul woon ay yat yorewul woon ay jaasi yorewul woon ay arme war nañu Sénégal yëpp te ma suñu jote kenn fii Touba ñi fi nekk mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk fitna fitna la ñu dëkke fitna la ñu juddu fitna la ñu yaroo fitna na ñoo defee seen àddina yëpp te fitna moo leen fee jële ñun daal lu noo def mooy doxe jàmm doxe ndigal te fu nu toll jëm kanam ndax sëñ Tuubaa la ñu àndal suñu jógee si loolu ñaareeri ponk bi Ablaye Wade wax ni ma wax ko mooy élection yii nan ko bëggee woon demewu ko lu tax parce que yi moo teguwul si yoon lu nu bëggoon mooy ñëpp jot seen carte ñu organiser yëpp na mu aw yoon Sénégal yëpp àddu moom gëm na ni ndaw ñi jigéen ñi moom la ñu àndal te ñoom ñëpp suñu jotoon seen carte waxuñu jël deuxième waaye lu mu tuuti tuuti senegal fépp daan ko wër kon loolu jax nañu wax ñetteel bi mooy am Ablaye Wade nee na amul seen fay amul fayu képp ko xam ni danga nga bokk moom sëriñ tubaa ndax Serigne tubaa ngeen ko jàppee amul fayu population Touba gis na taxawaay bi ngeen def ba xaaju guddi ñi ñaa vote taw baa ngi taw seen kaw yëgun ko naaj waa ngi seen kaw yëgun ko ndax bëgg lay Wade bëgg ko ngir la ngir Serigne Touba mi ngi leen sant di leen gërëm di gërëm waa Touba di gërëm waa Mbacke di gërëm gox yi nekk fii yëpp. amul seen fay mi ngi leen sant bi leen gërëm li si des mooy yéen xam ngeen que jaruma wax leen que gañe nañu gañe bu leer suñu bàyyi woon nag département bi yëpp suñu bàyyi woon nit ñi voté normalement waxuma gañe waaye danoo yokk suñu score sur euh, donc euh, sur la liste national looloo tax xam na ni Touba dañ ko ñàkk Touba sabotage la man maa ko wax dañu saboté élection bi ndax bëgguñu woon population yi voté loolu muy dëgg gu mat sëkk waaye nag teewul ba mu amee gis ngeen man dama woote jàmm demal leen ñu sëñ bee nu digal jàmm waaye nag teewul ñu ngi laaj suñuy droit suñuy droit mooy ñu may ñépp ñu voté li si des mooy ndokkeel ñi nga xam ni mooy moom la ñu àndal di ñi nu investiroon man de bokk naa si ñi leen tànn. waaye ruslowun ma benn yoon ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu di di remercier aussi bu baax ñaari président premièrement coordonnateur départemental bi dañ ko investir mais teewul moo doon coordonnateur départemental bi di sëñ Assane Mbacké di remercier bu baax ñaari yi nga xam ne ñoo jiite kenn ki comité électoral Touba di sëñ Seydou Mbacke comité électoral Mbacke moom moo nu léegi ma ne ko jëlal kàddu yi nga wax ak nit ñi ah, di docteur maa ngi remercier bu baax mouvement Ande Defar Mbacke ay jàmbaar dëgg lañu damay leeral fii ni ñoom. ñëwu nu kat wax ni danoo ànd ak yéen ci nangam ak nangam déedéet li nu bëgg mooy seen ndam tegul nu condition laaju nu dara ba pare ànd ak vingt quatre conseillers municipaux ñoo ñëw démissionné ànd ak ñun looloo tax ñu yonu leen yonu leen ba kenn gisatu leen ñu dóor leen si suuf pënd bi jug si Mbàkke yanu leen yanu leen ñu jëm kaw ba kenn gisatu ñu dóor suuf band bi mooy sant ñëpp nag investi yi amuñu seen moroom amuñu seen fay amuñu moroom di sant ñëpp nag population yëpp Aziz jërëjëf santal ma président euh, conseil municipal yëpp ak ñi nga àndal li des nag mooy ñu jël fii engagement engagement mooy incha allah lu nu man pour jàppale Mbàkke Touba daan ko def daanu doon ay dëp ay député yoo xam ni Mbàkke Touba moo nu ñor lu nu man xeex pour ñoom daan ko def président Ablaye Wade lu mu man pour jàppale leen dana def li des nag ma koy terminer rek mooy suñu góor googu yàlla na ko sëñ Tuba sàmmal suñu góor googu yàlla na ko sëñ Tuba sàmmal moo bëgg Sénégal Ablaye Wade bëgg Sénégal te Ablaye Wade xam-xam bi mu am dayoo gi mu am mënoon na toog di wër àddina bi ñu koy jox ay mission ak di ko jox ay grade lépp mu bàyyi ko yàlla may ko kàttan mi ni damay dem xeexal yi sama réew ndax kat réew mi nekkul ci loxo yoo xam ni sedd na sama xol Afrique dafa suuxee Sénégal suuxee Ablaye Wade bëgguñu jëm kaw looloo tax mu ñëw ànd ak ñun ñun ñëpp am nañu am nañu suñu biir xol cant guñ koy sant ñun ñëpp am nañu suñu biir xol ñaan guñ koy ñaanal li si des mooy sant kilifa diine yëpp dellu leen santaan dellu leen leeral ni leen ñun jëluñu politique jiital ko suñu xol ñun ay taalibe yoo xam ni gëm Sëriñ Tuubaa la jiital suñu xol kon lépp loo xam ni day yàq dëkk bi kenn du lu si ñi nga xam ne ñoo yàq dëkk bi ñëpp xam nañ leen demuñu si oto Serigne Cheikh fekkuñ fi benn arme fekkuñ fi bant fekkuñ fi paaka oto Serigne Assane Mbacké fekkuñ fi bant fekkuñ fi paaka oto oto oto Cheikh Abdou fekkuñ fi bant fekkuñ paaka ana jaasi ya ana pistolet ya jëkk yoroon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg fitna jërë ngeen jëf vive Ablaye Wade vive la coalition gagnante vive la coalition gagnante lu mu wax mooy proposition bi ñun ñoo jëkkoon demandé ni vote bi ñun ñëpp ñoo jëkkoon demandé ni vote bi nañ ko dàq ba beneen yoon ñoom ñu bañ defe ni jekku léegi nag ñun bureau yu ñu tëj ak suñu réclamé suñu delluwaatee dañ leen di gën daan daan bu gën metti ñun amuñu jot boobu li wóor te wóor mooy élection yi ñoom yàq nañ ko gañe nañu gañe nañu gañe nanu gañe nanu ñoom dañ ko doon yàq bañ ñu gañe ñu gañe leen ba pare ñoo wax nanu tàmbaliwaat kooku wax joo xam ni waxu kasaw kasaw la ngeen jëf Nous, nous sommes libérés, libérer les populations de Mbaké. Vous libérez mani ñi ngi lay sant di la gërëm liggéey bi yàgg na liggéey bi métti na mais li ñu bëggoon am nañ ko mooy gañe nañu suñu victoire dañu koy feetu ci sab Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul sëriñ Touba sëriñ Seydi Mokhtar Mbacké yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér maisar neen président Abdoulaye Wade ak mboolem coalition bi ñun du yàq suñu dëkku maam ndax suñu Touba moo jur suñu maam ñun ay taalibe lañu ndigalu sëriñ Touba la ñuy ban tàmbalee campagne Serigne Cheikh moo ko jiitee ay kaamil lañ tàmbalee ay kaamil alxuraan lañ tàmbalee ndax moo ñu fal ndax alxuraan moo fal lépp mais population Touba ak Mbacké boo demee na nga wax président Abdoulaye Wade dañu soxla ay poste ci assemblée nationale muy président assemblée ak président groupe parlementaire au département de Mbacké dañ ko soxla ndax mënuñu am juróom-ñaari député yóbbu ñetti député l'Assemblée nationale muy fukki député vraiment du ñu sédd suñuy cër pour les élections 2019 wax boo demee wax ko président Ablaye Wade ñun ay candidat pour jiite groupe parlementaire bi ñu am foofu noonu ay candidat lañ pour am président euh, commission et le vice nationale ndax dañu ko am cër ñaari cër yooyu nag Touba moo ko ma ak département bi merci merci